bismillaahi fii niin ak daala yàllaaw sawi baqa abin bi fiika yàllaaw bismillaahi fii niin ak daala yàllaaw sawi baqa abin auzu billaahi min asseytaani arrajim bismillaahi arrahmaani arrahim hasan albaaxi min asseytaani hinda mamarriya o fil awtaani hibaada tahtu bismillahi wa huwa kafaaniya sawil malaahi wajjahte kulla al amri wassukuuri lil maaliki arrahmaani wassakuuri salli wa sallim wal tubaarik sarmada halal lasi sammaytuhu muhammada wa alihi wa shaabihi wal ambiya waskurtihi muqaddama ti rabbiya si dunia kulla lansatin wa tarfa min baadi nuurikal muxaalifin wa xarfa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu di jiital nuyoo bi ak ziar bi sëriñ Muntaxa suñu borom gën ko fee yàggal leen wax ne alxuraan dafa wax ne innal abraara la fi nahimin wa innal fujjaara la fi jahimin ñi ñëpp ay abraar la ñuy ñi dem sawara ñëpp ay fujjaar la ñuy tudd te fujjaar yooyee war a dem sawara borom Tuubaa nee na awuma ca kenn nit man kenn nit ku mu bëgg doon nekkul ca fujjaar yooyu te abraar ya war a dem àjjana ñëpp ñëpp man la ñu àndal xërëbatil fujjaaru turan li siwaaya wasaaraan abraaru turan li hawaay kon kay li gën sëñ Tuubaa ko am ngeen xam ne maam Thierno borom Daarul Muxti daan yor ab téere dem ci Sëriñ Tuubaa mu ko koy jàngal ba téere ba xaaj sëriñ ne ko Thierno demal li ci des ma ñu ko ndax maam Thierno dane li ma sëriñ Touba jàngalut moom laa gën a dégg ca la ma jàngal waaye sëriñ Touba te ca man mii de Thierno yéem na ma ngir lam xam la muy bari bari xam ne ne may bëral la ma sori li maam Thierno ay ay xam ne ne sëriñ Touba rek ka fi nekk laa wax sëriñ Touba wóolu na maam Thierno yónni ko ko duyal ma satala ga te ñëw ma wax la mu dem defal ko ca ndox ba mu jàppoo ba noppi dane ko Thierno tonnel ma njàppin ñu tonnil ko ko muy ab ëmb sëriñ ne ko ndaxam muus ceerno ëmb bu toll nii ku doon def fu jant fenkee fu jant fenkee nga lëkkale mboolem penk mi feeñ ci jant bi ak jox gan ma koy jox te lépp di dërëmi wurus dëkkal ma Tuubaa moom mu ko gënal jëmm ji nekk ci li mu bëgg képp lañ mën a sàkku ngërëmam moo tax toog Tuubaa kawe na lool ci am murit rawatina ak jamono ji murit bu nekk war na koy jéem kem kattana ba tey noonu sëriñ misaale daa digal ñu bari ci murit ndax bu leen laajee dañuy wax ne wuti haddiya ak yor njaboot bi moo tax moo tax mënuñu fee toog kenn ki ñu joxale addiya lii la wax leer na nañ te war nañoo xam ne sanga baye ñi ci bari woon alal ñu néew la yónnante bi moo gënoon a ñàkk ñëpp laa wax alali adduna kon murid bi lu ma am lu mu tuuti tuuti mu jàpp ci te toog moo gën dem ak a ñëw te bari alal leer na lool ci waxtaan yi Serigne Touba wóolu na Serigne Mame Mor Diarra ba mu ñëwee Serigne Touba daa wàcc der ba mu toogoon jox ko nangu caa toog ñoom ñaar maas yi toog fi suuf Serigne ne ko sa turandoo kat Muhammadun Rasulullahi moo fi ñëwoon bëggoon laa gis lool am na lu Serigne Mame Mor Diarra waxaat Serigne Touba ne ko xamoo ne nee yaa ko gënal ci ay turandoom moo tax am na naar bu Serigne Touba ma sa wax nekk ci bu la neexee maa ko ci def bu la naqaree maa ko ci ngi mel ne sa satala yi fekkoon mooy ay satala lu ci nekk ku mu neex yaa ko ci def ku mu neexul yaa ko ci def moo tax borom Touba génne na xasida gu ñuy tënkee hasbunallahu wa ni'mal wakilu xasida gi mi ngi tàmbalee amittu man yazimu nii min ad darar min kulli saytaanin wa jinnin wa basar wax ne xasida gi laa defoon kaaraange ci ngoonu ajjuma ba mu waree xëy gaaw a ànd ak tubaab yi bi ma yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam aaree digal ma ne ma demal tawul ragal kon laa xasida gune am na lu ko tax a jóg waaye nii sëriñ bi waxee na ngeen xam ne xasida kaaraange ba tey loolu mu wax ñu leeral bu baax ne ab jaam waxtu ci nekk daa war bi am lu muy sabablu moo xam ak mujj la wala leneen ndax sëriñ bi daana sabablu dugub bi imam Shachal yu def ñu koy wax dugub géej nee na mosu koo bàyyi diirub li muy nekk ci géej gi benn fan ba tey loolu dañuy xamal yittewoo gi muy yittewoo lépp luy muslim ak sabab lu ga muy sabab lu lépp lu koy musal fi mu ne ku la gën a mën a moytu rek moo lay gën a mucc ci dogal bi yàlla may di leen ab tënk ci dunduk soxna Aminata Sayxu Mbàkke bintu Seexul Xadiimi mi ngi gane àdduna ndaam daalul alimul xabiir ci atum 1922 waajuram mu jigéen mi ngi tudd soxna Faabie Diop di bokk ak soxna Faati Tuuti Diop mi ngi wajur Serigne Mourtada lépp moom la Serigne Omar Fall di wax ca way wanaan li ummina fa bi mariamu muxsina aminatun xus hazihi mustaxsana min xayri walidin anaaral balada kama ataaba nafsali wal balada am njàng mi ngi tàmbalee ci loxob Serigne Daam Abdourahmane Lo ba mokkal alquran lool te xëri ji ko waaye mboolem fan xam-xam yëpp mi ngi ko jàngee ci Serigne Daam Abdourahmane Lo ràññeeku woon na loolu ci mën a way am na xasida bu mu taggee maam soxna jaaratullahi mariama busa muy xasida ak wolof bu gudd gu siiw lenn ci jàngat yi dañu koy jàng téeméeri bay la ak fukk ak benn mi ngi tàmbalee ci bismillaahi mëjug man santalillaahi sangub jigéen ñi ci duniyaa jaaratullaahi am na yeneen way sax yoo xam ne ñu ngi koy wayaat soxna jaara yi jar naa tax jigéen defub xaadam moom mi nangoon xaadam tey si siggil na kër maaram soxna mii li mu am sax jigéen mënu koo jëf waaye nangu ak yéene daana dolli may buy jëf soxna jaara sa géej gi moo xattan mbagi buy daw lu ma sin ba rëy rëy du teree ndox may boobu soxna jaara sa géej gi loo ca sànni mu diigal fukki junni ci taxteel mu naxtal du fees rek soxna jaara sa géej gi mbambulaan mun a walwal foo taxaw mun a mel-mel du suwa reyoon a jol jol soxna jaara sa géej gi gën ku ñu mës a baali ku bëgg dawal taali du suwa yaa bina doole soxna jaara sa doom jee gën ku ñu mës a yónni noo ngi ñor tune moo yónni ku ñu mës a yónni soxna Aminata seexu nekkoon muridatun saadixatun muridatun bu dëggu ku kawe woon yitte la woon dina feeñ ci xasidaam gi li mu wax ni bu nu yàqu bu nu yàqee bu nu yàqit la bamba defoon saadix saadix bu sax ci ndëggal ngir jaaratullaahi ñaanal ma nag man sa sët bii tudd aminatin nu sax ci roy la bu wér maam jaaratullaahi pëssee fi yokk nu sax ci jub di jaamu bu wér tey sopp alhaaji fallullaahi lillaahi ku bëgg a xam lu bari ci ak dundam ak pastasam da ngay delluwaat ci xasida ji mi ngi doon liggéeyal boromam ci kër Serigne Mouhamad Fadiama ñam li koy firndeel mooy mi ngi wax ci biir xasida gi naan tajaajëfal ki ma àndal Cheikh Ahmadou Niang muy doomi Ahmadou Niang ngir jaaratullahi bokk na ci njaboot ga fa am Serigne Khadim Niang ak soxna May Niang gannaaw la na ko jox Serigne Mahmoudan Jobbe Mbacke moom Serigne Massamba moom fa soxna Mame Fatim Mbacke soxna si nag wakiir la woon na ci yàlla ba tax na bu mu tawatee docteur yi bëgg ko opéré dafa wax ne rus naa dajeeg Cheikhul Khadim di am dara li man ci samay cër ngir bëgg a dund mi ngi fi jógee ci atum 1993 soxna Fatou Issa Diop te gën a siiw ci turu soxna Diop Mbacke mi ngi feeñ jamono ci atu 1900 ci yéen Jolof waaye juróomu jigéen mi ngi tudd soxna Faati Tuuti kon mook Sëriñ Mouhamadul Mourtada ñoo bokk lépp waykat ba nee na fatimatun fatimatun bintu madun sàmbalaha fatimatun laatun kiran fadlaha roqayatun muslimatun muhammadu abdul muhaymini kasaaka maamidu waaye juróomu jigéen ku wattu alquran la woon bind ay kaamil ku am xam-xam la woon sama doomi baay wax na lii fa ummana tuuti bi kabin ramadan fii laylatil jumuhati mawtuha staban xad katabat biyadiha masaxifa tuhaddu xamsatan turaka arifa li xayriha min jumlati niswaani tihil masiyatu min sudaani moom soxna Jóob Mbàkke bind na ñetti kaamil ba naa ba tàmbali am ñeenteel yàlla dogal mu mu bàyyi ko fi mi ngi jàngee xam-xam ba tey ci sëriñ Abdu Rahmaan am na ñu wax ne moo njëkk bind alquran ci doomi jigéen sëriñ bu ñu neppee sëriñ Abdou Rahman da koy jox dugub mu defaral ko cere ma ànd ak moom boole kaamil ba ak cere ja dem Jurbel ci sëriñ bi jébbal ko kaamil ba sëriñ bi dégg lool wax wax yéen digal leen ñu dellu Daarul Aliimul Xabiir sëriñ Moustapha Lo rahimahullahu nee na sëriñ Mouhamadou Lamine Diop nee na ko nee na loolu daa fekk Abdoulaye doomi Cheikh Sidiya Baba nekk fa sëriñ bi digle ñu wan ko kaamil ba te berneel ko cere ja ngir wan ko ne naar bu jigéen mënul boole bind kaamil ak defar cere moom soxna bind na ñeenti kaamil sama doomi bàyyi wax na ciy bay wa bintuha soxna xafat wasa kalat fakatabat arbaatan laakin wafat am na nag ñu wax ne soxna Maymunatul Kubra moo njëkk a jébbali ab kaamilam taarix na moom léeg-léeg moo am wute tayit wute googu noonu la baaxoo ixtilaaf wallahu alam wa ala kulli alim soxna si waxtu na alquran bind ay kaamil kon kay jazaahallahu xayran moom nag mi ngi nekkoon kër Serigne Daam Abdourahmane Lo mooy waajur Cheikh Abdoul Majid ngeen xam ne mi ngi fi jógee atum 1930 kon moom soxla si amin marché bii may bëgg a wax soxna may munatul kubra moo ko ko defal ma ñëw fi def marché boo xam ne nii gisuma kemam ci rakk rakkay am mag ñi ñi di maasam te jooy bi saa jooy xol bi def ko muy walafal te wax ci laa xam ci moom cay ak yaram boo ko xamul moo di bind seexi na na wa na tey sëpp maam maaram ba tey bu ngeen ko xamul moom la Serigne Touba joxoon Cheikh Abdourahman bu baaxoo xam li kër baayam xamal na mbooleem ku baayam jur xamal na itam boole ci ay taalibeem bañ xam ngir baayam Serigne bi woolu ko def ko sàmm jox koñ ñañam te sax li ciy seere moo yor kañi kuy maasam moo yor ki tax ba ma jóg tey jii di marché ngir mbaa xam ku leen di asal moo aw ngirum baayam moom mi sëriñ Abdoulaye wax moom la Bàmba di fay ci sang bi boole ngir saa xam ak taaram man a jëlee la turam ma soxna la ñu koy wax Mbàkke balla asal tey jii ma ak baayam bisub àllarba ci waxtu takkusaan la ñu may wax ak demam sama xol baaraw xol bi yaayam yaroog fulla ak kersa ak ñu gàtt ak taaram la boole bindoon na téere ngir baayam daawul xuloo ku ko mag daawul xasit ku mu daf daa teral ñëpp moo gën nag ku fi maasam daf maa bëggoon lool ba def ma soppe moo tax itam fii maa ngi dund damay jooy sitt mam maaram bu dul ko nag xam ne maqaama waral ñu ne ca xam ne rey maqaam rek a waral sëriñ bi jël si ko xaar iskay bi lépp yaaram sëriñ bi yàlla nanu taas ci dara jaam yamu am musal ko bokk ci moom te def ma may alim ndax yàlla buñ ma defee alim ma doole ko ay di seen yu day tagg di yaaram walhamdulillahi man ahmadul al bashir man wayu yelloo kañi kuy maasam subhaana rabbika rabbil xissati amma yasifuuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin bismillahi fiinin addaala yàllaw sawi baqa abin bi fiika yàllaw bismillahi fiinin addaala yàllaw سعيد قاعد